actuellement li ñu ci njëkk a naqari mooy que ne am na kër yi nga xam ni fayoon nañu comme Abbas bi ñu mujj assigné fayoon na chez le notaire ba mi ngi reçu jaayaat nañu këram ba kii lu war a mat téeméeri nit ak juróom-ñeent teg nañ ci loxo ah am na ñi nga xam ne dañu ñëw bu ñu amee problème bu ñu ñëwee jënd ko mënuñu ko jël dañuy jël kayit gi dem tribunal tayle ko comme titre foncier la bu ko defee léegi ñu bàyyi fa kayit gi du ñu demati banque nag bu toogee ba soxla xaalisam mooy indi vente bi bu ñuy jaayaat suuf loolu nag lañ ci def def nañ foo képp koo xalaat ci suuf ñun bi ñu commencé rek en 84 ministre d'état bu fi ñëw gouverneur bu fi ñëw préfet bu fi ñëw sous préfet bu fi ñëw ci gox bi dem nañ fa wax ak yow am na benn maire bu ne fi maire Ndiago dafa tabax këram ba pare toxu si amu fi un mois un mu liggéey bu lu woon ci waa population bi dañuy maasale kër gi ñu ñëw toj kër gi ba mokk rumbax ba léegi bayaat